li waral nag euh, jataay bi lenn rek la ndax alxames dañoo demoon seeti sunu frère Cheikh Abdou Mbacke Bara Doli bi ñu demee seeti ko fee ca Rëbës waxtaan ak moom mu am ay kàddu yum ñu dénk am tamit ay kàddu yum ñu yóbbante ndax dañoo jàpp ne ñun jàpp bi ñu ko jàpp jàpp la boo xamante ne jërul yoon muy benn ndax dafa nekk député am mbalaanu kiir laay boo xamante ne da ko proteste ci lu bëree bëree bëree bëri waaye dafa mel ne fee mu nekk ak ñam fa fekk àq ak yelleef ba nga xamante ne moom la war a am dañ ko salfaañe ci lu bëree bëree bëri dinañ ci ñëw bi ci njëkk mooy moo ñu wax ci làmmiñam daan ne fii ma nekk ñu ma fi bokkal nekk chambre la boo xamante ne téeméeri nit ak benn ñoo fa nekk ci ab député boo xamante ne dañ ko waroon a yóbbu ci chambre boo xamante ne chambre bu boo xamante ne dina méngoo ak moom cér bi mu am ci wàllu ndombal tànk waxantuma nag mu nekk sa ñewatu euh, Serigne Touba bokk ci famille bi nekk dareetu sëriñ Touba kon kooku bu ñu ko bëggee jël bokk ko humilier ba ko maanaam toroxal di ko defloo loo xamante ne daanaka sax xëy na ñun duñ ca mën a duñ ca mën a egg waaye bu bu ñuy def rappel sax bu ñu ko woowee ne ko Cheikh ab Mbacké bu ne mbake dañ ñaan ko bul fu yow Mbàkke waxal président mu nekk loo xamante ne ñun dañ koy ñaawlu ndax moom lam fa nekkee muy ay naataangoom marum député nekk fa ñu boole leen jàpp privilège yañ may ñooñu sax moom may ñu ko ndax ñooñu noonu nekk ay député bu ñu amee visite ñu leen di seet si dañ leen di génn ñu def contact ñoom ñaar waxtaan mais bu dee Cheikh Abdoulaye bu ko nit dee seet si da ngay ñëw wax ak moom ci parloir bi moom ngay wax moom par maanaam téléphone mu nekk loo xam ne acte la boo xamante ne bu ñuy ñaawlu lay doon ñun ñëpp waaye nag mu mel ne dafa am ñaari mbir yoo xamante ne daf cee am bi ci njëkk muy ci cadre sëriñ si ndax dafa mel ne dañ ko seetaan te seetaan gi nekkul loo xamante ne lu jaar yoon la ndax tey Cheikh Abdou doomu dëkk bi la bokk ci dëkk bi bokk ci njaboot gi maamam Serigne Abdou ja defal sëriñ Touba loo xamante ne Serigne Touba da koo gërëm gërëm loo xamante ne maanaam njaboot gi ñëpp dañu cee xaj kon tey ji ab sëtam bu ñëwee ñu jël ko denc ko ci ab kaso mbokk yi njaboot gi ñëpp war a taxaw soutenir ko mu des kon ñun dinañ taxaw wax ne soutenir ba mu war a am ci famille bi dafa des moo tax ñun ay taalibe lañ tey ndigal la ñuy diglu ndax am na loo xamante ne waroon nañu muy ay manifestation ay ndaj ak lépp waaye nag dañu am kilifa bi sëriñ Baara Doli dajale njaboot gi yëpp ñu dem ba ci sëriñ Mountakha diis ko ko wax wax ak moom sëriñ bi daf ne leen toog leen diglu ma waaye nag ñu xool ne depuis boobu ak léegi yàgg na te amagul benn retour boo xamante ne am na kon ñuy fàttaliwaat sëriñ bi rek ne ko génnuk Seex Abdu Mbàkke dañoo ñor lool tey dañ ko bëgg lool ndax nit la koo xamante ne dafa amal njariñ Touba ndax bi inondation yi amee joxe na ay machine pompe joxe nag wàllum gasoil génne na xaalis joxe dimbali nit ñi bi fi kii bi amee maanaam Covid bi génne na juróomi million daal di joxe bépp activité bu bu am Touba te mu ñor Touba te maanaam ñi fi nekk muy ay député war koo def mennum Cheikh Abdou lañ gis koo xamante ne mi ngi taxaw askanu Touba ci wàllu ndimbal ci wàllu social ak ci lu bëree baree bëri kon nag loolu bu ñu demee ba dal ci kawam ñëpp ne teg seetaan. danaa ji jàpp ne tamit bu ñu seeraanee ëllëg dinañ àtte ndax ñun dafa am fu ñu yem te fu ñu yem bu ñu ko dépassé rek mën naa indi loo xamante ne bëgguñu ko woon kon moo tax ñuy ñaan mu Mountakha bi nga xamante ne mooy Serigne Touba di ko ñaan nga xam ne Cheikh Abdou doomam la jaar na ci moom mu yar ko jàngal ko def ci moom lu ne tey jii mu euh, euh, Macky Sall ñëw ak gouvernement di ko néewal doole kon ñu ngi koy ñaan Serigne bi moom mu sànn ci kàddoom wax ci ñu bàyyi ku nu mu gën a gaawee. ndax ak génnam fekk suñu ci biir euh, ci biti daf ñoo ñor lool te loolu ñi ngi ci gën a ñu ngi ci gën a insisté bu baax a baax a baax di wax daal ne lool moom ñor nañu tey bëgg nañ ko beneen bi ci toog bi ma demee ba toog ak sëñ Cheikh Abdou man dama am lu ma metti parce que dafa ne ma sëñ Assane depuis ñu ñu jàpp ma ba tey benn politicien bu fi dëgg tànkam amul te mu ànd ak ay nit ànd ak ñoom di campagne ànd ak ñoom di defandoo ak ñoom lépp tey jii ñu jàpp ko ñoom ñëpp ñu taxaw dar koy daal koy seetaan kon man damaa xamatul kon ñun ànd bi ñu wax naan ànd nawle la ñu ànd kon ànd boobu ànd lan la parce que bu ñu ànd ak nit ànd moom di xeex mu joxe bakkanam joxe léppam euh, Cheikh Abdou maanaam euh, réew mi daal koy jaral lu ne kon tey damaa jàpp bu ñu ba taxaw ci ab programme boo xamante ne jël na fa kàddu kàddu yooyu jural ko lii mu lii ñu ko teg damaa jàpp ñum ñi mu di di xeex war nañ ko mën a taxaw ci fànn bu baax a baax waaye taxaw bi nag dafa des parce que Cheikh Abdou moo génne juróomi million jël ay avocat daal leen di fay benn avocat moo leen rax te bi mu ñëwee Cheikh Abdou moo yëkkati ñeent fukki junni jox ko te keroog bañ mandat dépôt Cheikh Abdou ca la fa avocat boobu mujj te mujj a tege tànkam. ma jàpp ne kon yeewi askan bi ak wàllu Sénégal war nañoo mën a jël pool de avocat boo xamante ne war nañoo koo mën a défendre war nañ koo mën a maanaam jàppale mais man damaa gis ne ànd bi ñu ànd dafa nekk ànd boo xamante ne dafa am ñu ñuy jàppale am am ñoo xamante ne duñu leen jàppale. ndax dañoo seetlu ne bi ñu jàppee Déthié jàpp Mame Diarra Fam jàpp Ahmed Aïdara te suba ga ay leader dem nañ seeni kër yaay masawu ji leen waxtaan ak ñoom pourtant Cheikh Abdou dañ na ci xeex bi lu ne bañ ko jàppee ba tey ñoom kenn ko taxaw ci kër yaay wala ci kër maanaam ay mbokkam amul loolu mooy lan te ma jàpp ne nañ koy defalee ñeneen lañ ko war a defalee maanaam Cheikh kon manque de solidarité boobu dafa des kon ay nit bu ñuy ànd dañuy nawlante dañuy joxante cër dañuy fonkante tamit li dal Seex Abdu ëllëg mën naa dal keneen ëllëg mën naa dal keneen waaye bu ñu xool ne Mbàkke la sant rek duñ ko xeexal ba ci seen ay discours sax daanaka booy xool duñ ko fa tudd kon loolu loolu la ñuy ñaawlu wax ne ñun dañoo bëgg lépp lu ñuy defati ak lu mën a doon nañ ci boole seexab Abdu nañu ànd boole ko ci xeex bi nañu déplacé wu di dem ci kër ay leader di leen seeti seen kër yaay di leen seeti di leen di leen masawu nañ ko def tamit Seex Abdu ndax dafa bokk ci terrain bi bokk ci euh, ci ñoom di ànd ñoom di leen jàppale kon tey seetaan googu moom la ñuy ñaawlu moom la ñuy dénoncé ndax damaa jàpp ne muy sëriñ si muy politiciens yi ñëpp dañoo war a am solidarité ci moom ndax Cheikh Abdou jiwu leen loolu ba ci journaliste si sax Cheikh Abdou maanaam jiwu leen loolu kon tey damay ñaan képp koo xamante ne yaa ngi fi ak koo mën a doon solidarité ci Cheikh Abdou na ko def parce que yoon la demande sociale la ci ñëpp ndax Cheikh Abdou ku mu amulul njariñ bëriwul ku mu jëppalantul tamit bëriwul kon tey jii nañu def di dem ci ay këru leader di dem ci ay këru ñeneen nañu ko def ci Cheikh Abdou woote rassemblement pour Cheikh Abdou woote tamit ay manifestation pour Cheikh Abdou pour demander libération parce que loolu dafa jaadul nekkul lu ñuy négocier parce que dañ ko seq ñoo xamante ne kenn ñu négocier ak ñoom li nga yor nga moom ko muy sa mu ngi sa yelef da nga koy foxarti foofu lañ toll kon tey ñi ngi ñëw ñi ngi lancé waat appel Serigne Mountakha di ko ñaanaat sunu Serigne la sunu lépp la dañ koy ñaan te it mën na ci dara mu wax ak Sall mu bàyyi seex Abdou Bara Dolly